ngi leen di fay ah, kontaan lool ci li ngeen ma seet si waxte wax dëgg yàlla comme que mag laa te yàgg naa ci réew mi war nay am léeg-léeg ngeen di laaj taataan xelu mag ñi ñu waxtaan ci année bii ñu génn nag ñu ngi ñaan yàlla année bii ñu jëm dax ko foofu 2020 moom ñaanatuñ yàlla mu amati fi muk mukk mukk mbas mi mu fi indi toroxtaange gi mu fi indi coono bi mu fi indi bekkoor bi mu fi indi yàlla nañ yàlla musal ci 2020 2020 daal moom ñu ngi ñaan yàlla ci barke Serigne Touba bu ñu amati at mu mel noonu mukk te maa ngi ñaanal suñu xalif général suñu yaakaar sëñ Muntaxa Basiir yàlla yokk leeram yo yokk maqaam am taxawal ko ba mu liggéeyal waajuram wu tedd wi liggéey bu mucc ay ñu ngi ñaan mu gudd fan lool Mbakke ku ñu sopp la ku ñu bëgg la wax dëgg yàlla waxam rafet na jëfam rafet na mu ngi yedd nit ñi mu ñuy xiir ci yoonu yàlla ak yonent ba ak Sëriñ Tuubaa man de maa ngi koy ñaanal yàlla yokk fanam ba mu doyal na dund ba doyal ndax mu liggéeyal maamam seexul xadim radiallahu taala anhu coow yëpp am na 2020 ko indi ndax mbër yi bu ñu doon bëree footballeur yi ñu nekk seen euh, sport yi def musiciens yi nekk seen liggéey def parce que ñoo koo xam ne kii lii ci lay dund boo ko xañee rek rey nga ko asgor su mënul ñaani mënul woyaani mënul sàcc lii la daan liggéey di ci am di ci di ci teddal ay ay mbokkam di ci teddal boppam suñ ko arrêté pendant un an te amul fu mu jëm amul lu mu liggéey xam nga ne loolu métti na moo tax ma ñaan yàlla lii moom yàlla na ko yàlla fay te yàlla bu mu fi amati mukk sur le plan politique aussi la même chose bon Idrissa Seck man li mu def man même am naa fu ma ko wax sax ci ay site man naw naa ko ci loolu parce que réew mi na gars yi bàyyi defe ni politique rek moo war a yor réew réew mi bu fekkente ne dañ koo bokk ñu compétir ñu gagné la buñ la tàllalee loxo nga xam ne xam ne am am nga njëriñ parce que nit dana bëreeg nit tax mu ne maa ko mën nit dana bëri nit waaye dana xam ni am na al galgal yu mën am na lu mën te bu fekkee da bëgg a defar réew waratoo seet lool doomi réew mi ñoo war a bàyyi li ñuy def man maa ngi lancé appel opposition bi opposition du tax bañ nit opposition du tax nga yéeneen ni yàlla na dee opposition du tax nga yéeneen yàlla bu mu réussir Macky Sall bu réussirul Sénégal la koy yëg bu amee ndam Sénégal la yëg bëgg nag ku na dana ko def waaye bu la ko yàlla joxul nga gëm yàlla nga dellusi bu ñu la wooyee xam ne am nga loo mën ci réew mi loo xam day defar réew mi nga jàpp ci bu ëllëgee ñi ñi ñi ñiy wotee ñun ñi ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy waa réew mi buñ la seetee bu ëllëgee bu ñu tànn mën nañ la tànn mais mënoo taxaw fee di sànni xeer ni tànn leen ma kenn du tànn loo loo loo moccul doo xam nu mu saf il faut ñoom ñu dugg ci réew mi jàppale président Macky Sall wala ñu jàppale ay gox man li ma jaaxal ñoom da ngay gis un reposant bu gagné un département mais cinq ans yi sal Sall yëpp yow doo fa def dara bu ndax nga ne man gagné ma réew mi mais gagné wa réew mi waaye ñi yaakaaroon ci yow war nga di leen taxaw di fa dem di fa def ay forage di fa di jàppale nit ñi di leen wutal ay financement département boo ko gagné même fekk gagné réew mi boo fa dee dem dimbale boo léegi mën nga gagné beneen département mais su fekkee ne yow fu ñu la gañee rek nga daal delluwaat toog yor sa yor sa xeej di di xuloog di xeex rek di sànni xeer naan kee baaxul kee baaxul loolu kenn du ko soppee nit nit ki da ngay jëf loo xam ne lii bu ko gisee mu xam ne yow mi kat tànnoon na kii waaye yow mi bu ñu tànnoon baax nga bu liggéey mu tànn la waaye mënoo toog di lekk say ganaar di sotti say costume di dem France di ñëw di toog boo demee assemblée di làkk ba nit ñi xoox naan nañ la ma jël mais nit ñi duñ la jël parce que xamuñu la ko kooku nañ bàyyi loolu nañ ñëw jàppale président Macky Sall président Macky Sall moo jiite réew mi waaye réew mi ñëpp a ko bokk daf ci am cër kenn am ci cër na ci ku nekk bàyyi sa waar na ku nekk dimbalante li sëñ bi wax dañoo war a dimbalante dimbalante nag amul naan parti politique amul naan naan tariixa amul naan fii nga féete doomu aadama jullit jullitu yàlla yi ku leen dimbale yàlla dimbale la man noonu laa gisee Mimi Touré aussi tout dernièrement def naa ci benn article ci ci ci ci ci journaux yi man maa ngi lancé un appel au président de la république na xam ni yàlla moo ko fal mënul nag fexe ba nit ñi duñu bëgg li mu yor ku ne man mii bu ma sañoon nekk président de la république bu ma nee bëgg naa koy te yàlla tudd ko duma ko am moom mi ko yàlla jox na gëm yàlla xam ne tànk yàlla wàccewu ko du wàcc waaye joxoñ naa fauteuil président dàq leen ko kii dafa bëgg toog président nañ ko dàq mais kon loom lu mu leen doon jëlee na leen jël sur le plan de la compétence ak yooyu ak li ñu koy jàppale ak di ko dimbale mais wax yi wax yi politique yu sew yooyu diw dalaa bañ nga dàq diw bëggu la nga xeex mais loolu yàlla santaane wu ko sax na bàyyi nit ñi ku bëgg na ne bëgg naa ba xam nañ ko mën a jotam déet moom na liggéey liggéeyam rek bu demee ni Mimi Touré mi nga xam ne sonoon na ci moom nekk na directrice campagne am ah de ah, des biens mal moo koy yan woon du ne mu yanul kooku mais loolu du dara du jar man boo bëggee sa am fauteuil man la waa demal góorgóorlu ba tax di nga si jotam déet mais du tax ma lay bàyyi di la mere di la xeex di di dàq ñi di dàq ñi ah yooyu yooyu baaxul Mimi moom wax dëgg yàlla man ndax xam neexuma moog Aly Ngouille ñooñu ñaar moom wax dëgg yàlla bu moom bu ma Macky mayoon ak li ma bokk moom ak li ma ko jàppale man ñooñu ñaar ñoom c'est des exemples ñeneen ñi nag xamaluma leen dara waaw ay Moussa Diakhaté yooyu ñooñu ay duñu ay nit ñooñu ay ay raato li muy def moom ku loolu man du ma du ma du ma génn rek toog di sànne ka saaga moom naka jekk noonu la meloon bi ñu ko joxee président groupe parlementaire bi mënu ci woon dara il titubait il a le verbe ah amul nit mais kooku bokkul mais mais ku demee ni Mimi ku demee Aly Ngouille Aly Ngouille gagné Linguère gagné Jolof gépp ah dem bàyyi ko fee deful dara xëy na bon désert mais ñoom ñëpp ñooy juum mais du ma la bàyyi man moo la wàccee it ma jël la di waxtaan ak yow di dem ci yow waxoon naa ko ci silo newoon naa ko ci silo xëy na naata xóona la waaye waaye amoon na njariñ man maa ko yóbboon ci Macky Sall ma ne ko léegi kii xëy na nit ko nangam jikko bàyyi koog jikkoom te yow fi nga bëgg aw ak moom nga aw fa ak moom ah, waaye boo ko dàqee di ko jéem a humilier loolu day déclarer guerre nit ñi te nit ñi talatuñ guerre nañ ànd man mën naa ànd ak yow ba yàgg nga dàq ma du tee ma ma bàyyi la mais mën naa ne ci pet bi di la jàppalewaat du dara yi kenn moomu ko poste da nga ciy nekk tey boo liggéey nga wàcc mais du tax nga wàcc poste rek ñu ne nañ la rey nañ la bàyyiwaat nga nekk mën nga am beneen post wala mën nga liggéeyaat ba nekk leneen mais kooku waaye nag bu fekkente ni lu xew rek ñu xeex aha mu ngay xool poste président ah opposition bi nekk fi diw diw diw rallier na diw jóobi na diw jéb mag Idrissa lu muy jébbalu Idrissa ak Macky Sall xamante nañ bu yàgg ci Ablaye Wade lañ xamante bu Macky Sall xamee ni Idrissa mii am na am na xam-xam bu mën a defar réew mi te man ma bëgg a defar réew mi du ma ko ñaanee lu tax mu jël sama poste mais na ñëw jàpp ci bu ñëwee ma jox ko cëram bu ma gisee keneen mu ñëw mu jàpp ci ma jox ko cëram mais loolu mooy defar réew mais ñoom dànqal nañ ñu ah di xeex rek di xuloo di dàqe kenn baaxul moo tax Sénégal a ngi nii dañuy yàq réew mi dañ koy yàq parce que dañuy nekk di xeex ak tànnante rek kon ne ni maa mën sa morom mais ku nekk na ñëw indi preuve sa yaa mën sa morom ñu ñuy fal la opposition bu gagné un département toog élection yi jeex mu fay dem chaque weer di nii baykat ya fa ne mu dimbal leen ci jiw am nañu xaalis ma génn sama léeg lu ma 40 millions 50 ma jënd ko jiw ñoom may leen bu ma jógee taxawul leen seet beneen département bu ko gis bu déwénee mu mu farak mu farak ñooñu mais yow ko ko buñ nga dem toog defaloo ma dara ba ba kiian nga ma campagne yow loo mën wan ma ma gis waaye fekkente ne yow da ngay toog rek ah ba ba campagne amaat rek wala nga ne si télé yeeg rajo yi rek dàq lakk da nga am Molière ah génn ay moo yoo xam ñun ay Sénégalais lañ lañu sarax nañu delloo seen xel delloo seen te xam ne ku bëgg ci réew mi da ngay dugg ci réew mi di jàppale réew mi nit ñi ku leen jàppale rek ñu jàppale la waaw ñun nous sommes des des des des votants ñun ay ay électeurs lañu ñun ku ñu jàppale la ñu xam parce que ñu dañoo bëgg a dund man bu ma nekkul ministre nekkuma député nekkuma dara aussi bëgg naa bu ma xëyee am lu ma lekk bëgg naa am fu ma jàpp mais yooyu lañu war a penser mais c'est pas que parce que yow yow leader nga rek ah da ngay toog mu la nga daal di ñëw rek ñu falaat la man ñi leen di ñi leen di fal ñi leen di fal dañu war bu élection amatee nit ñi toog parce que fol koo xam ne ki boo paree mu dem sa yoon ah. maa ngi ñaan daal président de la république man de militant la APR pur bu yàgg lool waaye fi mu ne maa ngi bëgg a xoox ndax wax dëgg yàlla lii xaw ma ko ñun suñu parti bu fekkee dañ fi nekk di xuloo ko xeex ku xeex ñu dàq la ku ni nii ñu génn la waa ji nekk Dakar dem dik mu ngi nii fex fexe naa ba jaxase ko ah, Macky Sall mu dàq ko te c'est un battant am nay nit sawaroon na mu ngi doon jubbanti entreprise bi mu ngi joxe mu ngi maye mais ñu mel noonu dañ leen di éliminer sama classe nga xam ne wër di fenn rek la ñu mën ñooñu dañuy jël mu ko dee ñu yàqaat réew mi loolu président danga nga ciy seet sa xel man de maa ngi lay ñaan man en tant que doyen man ay ay poste yi sax xëy na mais maa ngi lay ñaan bu ma sañoon sa nguur gii day day da nga koy doxal ci ci njëkk ak teranga ba ba ngay dem dem ci jàmm waaye bu la kenn nekk fi naan diw daa xool sa photo yi nga dax diw daa nangam nga dax di nga mujj dàq ñëpp parce que ku man mii di màggat sax ku ma bëgg naa nekk président de la république waaye xam naa ne yàlla defu du ko def mais nag yàlla. waaw loolu loolu aussi naa ci lu ma naqari trop waaye nit ñi dañuy defe ne ñun dañuy dund ba deux mille vingt quatre pourquoi yow deux mille vingt quatre ñëwagul nga naan du du ko du ko doon yow da xam nax da ko fekke moom dana xam ndax dana ko fekkee nañ bàyyi jiitu yàlla bu ñu bay yee ba mu des six mois mën nga ne ko doo ko doon wala trois mois wala ñu xam ñu ngi jëm ci élection mais lu des ñetti at yàlla ñeenti at yàlla. nga naan kii bu déwénee du du fi ne ñoom xanaa gëmatuñu yàlla donc fii 2001 nga commencé naan 2004 du falu di lijjanti constitution di lijjanti lu ne fu ñu wax ñu koy programme foloog ñàkk foloog yàlla moo ko yor bu 2004 bu 2024 bu fekkente ni da nga am constitution permettre na ko mu présenté nañ ko bàyyi présenté ñoom gën nañ fexe niñ ko gañee ah yow mën ngaa ñëw ci làmb ñu naan kii dugg ci làmb ji xanaa da nga yow kay yéen coalition la wala ngeen sottatoo ko bu duggee ci làmb ji bëree ngeen daan ko Abdoulaye Wade noonu lañ ko def li waaye de lijjanti fi mu ne ñu ngi ñuy xuloloo ci constitution lu xuloloo ci 2024 réew mi la kenn liggéeyatul moo tax yàlla dañoo alak sax defe naa gis nga coowal Sénégal su bari si billaay yàlla dañoo sànni bala parce que nit ñi dañoo ku ne yéenetul sa morom jàmm ku ne da ngaa soxla ku ne yaa ngi naan place diw laa bëgg mais loolu loolu mënul am nag ku nekk gëm yàlla xam ne yàlla moom moo la sàkk moo la wacc ci àdduna dan la dundal nangu gëm nag di yéene ñu lu baax yàlla jox la lu baax waaye yéenante lu bon ñun ñëpp safaan wala dañuy am xam nga ni lii ñu nekk nii te 2021 buñ defarul ci lay gën a metti ah nit ñi amuñu liggéey xaalis amul yow loolu nar a def ñun ñu quarantaine bi ñëw ñu ñu denc la yow noo nooy def ña amoon la ñam dootuñu ko dootuñu ko joxe dañ koy lekk dañuy den di korkoral parce que ñoom xamuñ ñu jëm. kooku fooy def fu fu nit ñi dem xalaatuñ ko ñun ñuy xalaat ay ay troisième mandat at mii jëm bu ñu xalaatul parce que ñun ñu ngi nii toog ñi amul place ñu ngi toog ñu doon liggéey dàq nañ leen fayuñu leen te borom kër la ñuy doon mbay mi jeex na lu lu fi des nañ seet nu ñu mën a dundee nu ñu mën a jaamoo yàlla waaye politique rek na fi diw jógee na fi diw jógee ba léegi nag fan day am 2021 bi ku dencu jéemut loo am jéem a xalaat nit Covid bi gaare na ma lii laa doon def naa jéem a def leneen naa def nii naa def nii dama doon bay gerte gerte gi jeex na 2021 baa ngi du naa wut def maraîchage naa def nangam naa def yari xar ah lu dañu war a lijjanti nuñ dundee mais ñu ngi nekk fii rek di xulooy ay post ak di warte yéeg ak di xool na sama photo yeeg mais on va mourir comme ça bii laay journal maa ngi lay wax léegi gis nga 2021 bi ñu jëm ku fagaruwul ce sera pire parce que déjà grengale nga mois amoo sol amoo dara sa la nga mu ngi jeex te mun na dem di jaanaatu yi est-ce que waruñ toog ñoom xam ne ñoom ñi doon ñu doon bëre wala ñu doon ñu doon basket wala ñu doon musique wala nangam nangam mais ñu ñu jéem a penser à créer loo xam ne da leen parce que musique rek du boo ci nekkee métier du tee ngay làmb dara man maa ngi nii as ndoktoor la mais dama yari xar damay def embouche damay gëlti gëlti léeg-léeg ma toog dem gi sama xar mu baax ma defar ko dugal sama frigidaire ah jox sama njaboot ñuy lekk maa ngi da ngay pensé nooy dundee ëllëg dangay ngay loo war a def pour ëllëg parce que kenn du toog defal nit mille vingt 2021 ku defarul sa bopp tardé nga parce que léppay manqué lépp du dox yàlla nañ ci yàlla musal buñ sañoon nag mu dax yàlla na ko yàlla daxal parce que 2021 moom waaw li ma li ma waxoon ci Alioune Sarr rek moom moom. heureusement sax waa ji def na ko mais il l'a fait à moitié Alioune Sarr a trop duré au CNG Alioune Sarr man xam naa ko médecin la stage bi mu njëkk a def état élève maa moom ñoo nekkoon à Archeleuc au bloc opératoire je le connais très bien mais dafa dem poussé ba mujj gi il est devenu dafa xawoon soxor day xeex day day dàq day day day koñe te loolu waru ko sant na yàlla yàlla defar na ko gis nga nit daal man li ma xam ci ne bu la yàlla defaree ba nga ba sant da ngay delloo cant gi ci doomu aadama yi yërëm nit ñi li la gis ko néew doole nga jàppale ko li la nga taxaw nit ñi loolu mooy fay yàlla parce que yàlla bu la joxee li mu la jox moomoo ko man yàlla su ma joxee deux milliards bu ma dofee rek laay defee ni maa ko moom dafa jël wërsëgu nit ñi mu yaakaar ni man mii war naa am xel yaakaar ni man mii war naa mën a dimbale am naa xol mu jox ma ko da koy joxe di séddale di jàppale waaye di xeex di ndax da nga ne mbër mu bëri am quatre cent mille nga nangu ko mbër mu bëri am 5 millions 10 millions nga dagg 2 millions yi ndax indi na nit ñu bëri nit ñu nañ leen génne ah mbër mi bu defee ay ay ay faute nañ ko sanctionné ah mais pas pas pas di jël xaalisam ah. te mbër ma xaalis bu écrit ba mu ne dañ cey dund mais yooyu yëpp il n'a pas pensé à ça ñu am ay ñu bon rek gis nga adduna bi loolu moo tax ñu bon da nekk dara rek ay ay ay ay ay ay na ma yàlla bal ay nit ñu bon wër la di la xel xel mu bon. ah caméraman bee dalaa bañ dégg naa ko muy wax nangam diw nangam ngay dox di alors loolu yow ñu jox la réew mi liggéeyal réew mi ah en tout cas man daal man daal euh, sëñ bi man daal maa ngi sant yàlla bu waaye maa ngi delloo di di conseiller sama président nag génn ci yi ñu koy dugal ku mu neex na wax bëgg na boobu boobaa nga xam mais bëgg naa rek ah waaye yàlla wax dëgg yàlla bëgg na nag ana ku bëgg lu baax. waaye nag bëgg lu baax koo jot yow nekkal ci li nga ne rek te lu baax nga bëgg lu baax ngeen ànd rek bu ñëwee bu ñemee ngeen compétir mais ni ni kenn du wax kooku yàlla yàlla wàcce wu ko di yàlla ngi bàyyi nit ñuy mil-mili rek te moo ñu moo ñu moom bu kenn wax troisième na bàyyi ñu wax cinquième mandat est-ce qu'ils vont vivre jusqu'à en 2024 gis nga ñi dem démb ak bërki démb <laughs> balay la balay 2024 coowkat yi kay wax buñ sàgganoon duñ fu ko fekkee yéene mu leen ko nag yàlla na ko yàlla fekkaloo waaye daal xam seen wax ji xamuñu fuñ jëm. waaw dëkk moom li ma ci gis moom moom politique moom dee na fi politique moom par exemple Macky Sall bu fekkee ne dañ koy nax na yeewu. ñi mu teg fii mënuñoo génne kenn waaw waaw te ñun ñi doon génne sonn nañu du ñu fi nekk ñu teg leen fi ñu ñuy génne kenn dama koy à mag laa xam naa li may wax am na ñu fi nekk dañoo sonnoon dañu ko doon jàppale guddeeg bëccëg waaye recommandation yi ñu koy defal moo bon diw nangam laag jëlal ñu ko ah diw dégg nga kilifa laag wala diw war naa am nangam ak alors ñi fi nekkoon di galérer depuis 2012 anañu te ils sont plus compétents ñoo leen ëppi nit danañ ko juumloo nag ba mu tànn fi koo xam ne kii bu boobaa it dañ ñu gañewaat rek ngañaay yi ñu fi gañee yëpp Ablaye Wade def ko dara kenn def ko dara dëkk bi boo jëlee ko ñu bëggul duñu la woteel waaw Macky kenn bañu ko Touba mosu koo bañ waaye Touba am nañ fulla goo xam ne gi comme que ñoom jo juróo leen jëndoo leen joxoo leen ñuy liggéey ñu ngi daan seen doole bu tànn jotee dañuy tànn ka leen neex que ñu mën a waxtaanal ka di seet kay seen xarit wala keleen di jàppale mais doo jël nag ay naba yu mel ni man rek daal di jël ni ma kaay jiite non gars yi dañuy bañ kenn defu ko dara lépp moom moo ko def boppam parce que du waxtaan ak kenn la preuve nekk bi avant avant élection yi woo na département yëpp Sénégal woowul Touba ñun kenn woowuñu kenn waxuñu dara ah dañ na sa andi comme ça en rade rek defe ne ñun dañoo jébbalu ci moom ah non nan seetaat ni muy doxalee. bëgg nañ ko lool waaye ki wax sa gémmiñ nga xasaw na sa doomu ndey la koy wax man daal wax dëgg yàlla je suis un temps mais danaa ko wax dëgg koo xam ne kii dama koy wax carrément ay mimi rek ay ñeeg ñi muy dàq na bàyyi dàq na leen woo mimi dàq nañ ko fi mu toogaat bañ folaat ko waaye tey ko bàyyi mu toog waaye du ko tam ndëmm tu wàll le pousser à la rébellion day day day day day mujj njëkk ndax mimi man xam naa mimi ni Macky sal dong la bëgg mais nii mu koy def daf koy pousser à xeex. parce que nit la lu bàyyi ñu du ko rey nit ñi di ko kokkali ñu ko nangu il faut pas humilier les na bàyyi na bàyyi loolu na leen woo ku mu ci woo man woo man ku mu ci woo nga nangu mais Aliou bi mu génne loolu nee il est à sa disposition ñeneen noonu waaw pourquoi nag ngay ngay topp di leen di xool di leen ruux di leen di di leen geddaloo dañuy dem Sénégal kenn moomul kenn de koo ruux mu gedd dem yoonam te nit ku am ngay mbokk en tout cas moi je le bu mu xeex ak kenn moom yàllaa ko dimbale yàllaa ko sàkk yàlla dimbale na ko ku ko xool bëgg ko kooku looy xeex kenn nekkal ci jaamu yàlla di dimbale nit ñi waaye fekkee ne ne yow dañ lay poser affaire de de bêtises yoo xam ni ah ngay xeex kii dàqal ki ah pinil kii kii dafa sob daf laa bañ mais man yow boo ma bañee lu may wàññi yaa ma moom da maa mën a rey te yàlla nanguwul dëkk bi moom laaj na xoolaat laaj na xoolaat lool lool lool lool wax dëgg yàlla daf ci am yoo xam ne yi il faut ñu ñu dimbale ñu ñun ñu fi yàgg te xam fi dara ñu sarax ñu ñu ñuy woo ñuy waxtaan parce que man wax naa ko fu ne man man dëkk bi am naa fi quarante cinq ans nekk fi fonctionnaire liggéey fi bu retraité toog di jaamu yàlla ñu mel ni ñun buñ ñu wooyee ñun soxlawu ñu ñuy fol sax nañ ñu bañ a fol waaye buñ sañoon fi ñu ne mu baax xoolal foofu mais demal demal demal foofu seni bi tu trouves des chrétiens tu trouves des jeunes yoo xam ni ay ay ñoo xam ni kenn xamuñu noonu ay njaago lañu ay lu ne ñoo fi def stage na ci nit ñi rek di hôpital euh, boobu comme clinique boo amee fracture du fémur quatre cent mille cinq cent mille waaw nan ngay nekkee Touba yor sa saret yor sa yor sa njaboot di dàq sa dépense di dem marché ka ñëw nga daanu fi damm sa moo ca damm nga dem ñu la quatre cent mille huit cent mille nga jaay nga jaay sa saret toog torox dama defoon Touba. ni ko sëriñ bi bëggee ak ni mu ko waxee ay ndimbalante moo fi war war nañ fexe fi Tuubaa di ko gérer ba social bi day dox ci côté yooyu il faut ñu seetaat hôpital yi ñu ci ne seetaat ñi fay dekk seetaat ña fay dem président conseil d'administration bi nangam nangam ñoo ñu gérer nit ñi di leen jàppale ci paj mi di leen jàppale ci parce que nit ñi sonn nañu da ngay faye faye faye ba walaa kaana kooku baaxul te war fii dëkk bi ku fi nekk jàng alxuraan jàng xasaayit liggéey sant sëñ Tuubaa rek la war a loolu la ko borom soxlaa ñun ñun Tuubaa dañoo war a tedd dañoo war a feex dañoo war a am fii kenn waru fi torox kenn waru fi ñàkk parce que borom da ko fay ñaan ni ñuy def nag di soxoraatu nag ak di ñaanante ak di ak di jaxase bu sàgganoon borom dañuy jéppi sax man de ñaan naa yàlla man maa ngi ci maa ngi ci li nga xam ne lii loolu sëñ Tuubaa bëgg lu ma am dinaa ko bokk samay mbokk samay morom dinaa ko bokk ak lu ma mën ci dimbalante dina ko def lu ma mën ci yéeneente lu baax dinaa ko def dinaa julli dinaa jàng xasaay dinaa jaamu yàlla man daal loolu laa xam waaw maa ngi sant ñëpp it te bu ma sañoon ñëpp mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu